maaleykum mbokk yi tey nag maa ngi fii ci marché Mbour tey nag leen a indil bind ndax bind day cosaan ci njàng ndax alxuraanu karim li koy téye mooy jàng ko mokkal ko waaye nag di ko bind tey dama leen a ñëwal marché Mbour wala big baa ngi nii fegg waa ngi nii kër yaa ngi nii basangi lalal ko ndax mu nekk cosaan ma leen di bindloo ay aaya ku ko toon ma jox ko dix mille kon ànd leen ak man ñu dugg biir marché Mbour tey nag ngeen gis lu yéeme acca bisimilah mbokk yi kon mbokk yi kii mooy ki ma njëkk a jël ma koy bindloo ñaari laaye ci alxuraanu karim bu ko bindee ma jox ko dix mille francs maa ngi koy bindloo nag layka layka nag xam ngeen ni ñent yoon la ñëw ci alxuraan waye ñaari ño bokku ñu leen bindé yeneen ñaari bokku ñu ñu leen di bindé xol leen bu baaxa baax yow mi sétan nak fi mu joom nak mako bindé ci commentaire nak mom da joom ñu dem ci keneen in ahadum min al mushrikeen stajaaraka bindal lool rek mom tamit gis ngeen li ko laaj noonu wa in ahadum min al mushrikeen stajaaraka war sa nak yeen say dem yo xamni ne doo ko liir waaye da koy bind mom tamit dafa joom xol leen limu joom ngeen daat makoy wax ci commentaire maa ngi soñ ñëpp ci bind bind nekk na lu jafe ci alxuraanu karim inna shaani'aka huwal abtar bind moom inna shaaniaka huwa labtaru laa koy bindloo mu nur lu yomb nag ñu baree bari mokkal ko waaye soo ñu ko bindloo dañuy juum seetaan leen ko moom tamit juum na ci mbind mi yow mi seetaan wax ma naka lañ koy bindee ci commentaire yi incha allahu rabbi wa Wakau mak, wakau mak, wakau mutuba, wakau mutuba, tuba, tuba, tuba. Masalah masuk lagi masuk kandang. وإن أحد من المشركين وإن أحد من المشركين وإن أحد من المشركين وإن أحد من المشركين وإن أحد من المشركين هذا ما صبر مشركين من moom tamit nga gis ni jéem na waaye ba tey tamit trouvé wul wax ma loolu naka lañ koy bindee ci commentaire yi. moom tamit nga gis ni juum na ci yaa Zakariya kon yow nan lañ koy bindé bind bu normal ci commentaire bay bàyyi leen ci xel bu baaxa baax bind lu jafe ci alquran wa in ahadum min al mushrikina wa in ahadum min al mushrikina istajaaraka wa in ahadum min al mushrikina wa in ahadum min al mushrikina am yoon ما شاء الله ليك تمام وإن أحد من المشركين mom tamit djumna <laughs> ci wa in ahadum min al mushrikina ace yow naka lañ koy bindé bindu bu normal kon gis ngeen ko nonu marché bi danaka wërna ñu bari bari bari ñu bindu yenn yi sax dama ko supprimer ngir bindu yu xaramu ba yegg ci jawriñ ji ñu naan señ fallu Jaxate setan wa in ashabul waaw Gracias. macha allah ate kon moom ngeen gis ni bind na ko bind mu normal amul benn faute noonu laay soññee ñëpp tamit ci bindum alxuraanul karim daa lu yomb waaye lu jafe la te bokk na ci lii téye alxuraan ci nit mooy nga mokkal ko waaye di ko bind bind mu leer. macha allah sëñ yow sa diimi rek bisimilah. kon mbokk yi ñoo ko gisandoo bind nekk lu jafe kon yéen ñi seeraan vidéo ba mu jeex maa ngi saako ngeen partagé ko ba ñëpp jot ci tayit ngeen wax ma ñoom lan lañ juum ak yan mooy yu correct yi incha allah rabbi gis ngeen ko nii yàlla nañu yàlla barkeel te ngeen gën a bàyyi seen xel ci bind alquraanu karim surtout yéen ñu yor daara yi jërë ngeen jëf mbokk